affaire may maymuna mom c'est vrai dem na tribunal barki dembu dan nañ ko dan nañ ko do won nak dafa jënd télé bi parce que licence télévision kenn du ko jaay parce que c'est appartient de état sénégal état mom mom licence licence waaw ni ko lu ñuy jaay lan la jënd euh, lim jënd moy dafa waxon ak nit ne len dama len di jox dama len di jox 150 millions ngeen jox ma manam télé bi yeena may jox fréquence bi jox ma satellite jox ma lepp manam micro caméra su ko defee man ma jël ma jox leen cinquante million nga xam ne moom laay moom laay moom laay participer daal ci bokk mel na lu bokk ci télé bi. léegi ngeen jox ma télé bi may liggéey chaque année. ñu def 60 ngeen am 40 pour cent ma am 60 pour cent. Hmm. ñu d' accord bi ñu d' moom mu ñëw jël télé bi. départ bi mu demee maanaam au début dafa joxe cinquante million ci 150 millions. 50 millions daal ñu jox ko matériel bi. Hmm. jàpp na dina mottali mu jël. Hmm. bi mu jëlee cinq fukki millions la ci joxewaat muy 10 millions. léegi nag dese quatre-vingt-dix millions yoo xam ne ba léegi joxewu ko te moom mi ngi exploité télé bi. waaw ah. quatre-vingt-dix million yooyu. dafa ñetti dossiers yu bokkul la dafa bokk ci benn dossier bi ñu ko daane. Mm-hmm. mooy daf ko war a joxe. dafa war a te bu ko jo quatre-vingt-dix millions. te su ko mm-hmm. joxewul fii ak décision décision juge bi di génn. waaw bu juge bi motivé décision bi mu jël. télé bi moom dañ koy jël. parce que loolu la yoon santaane. dañ koy ki ko moom da koy jëm jëli. Hmm? waaw xanaa diggante bi mu am fi quatre-vingt-dix dem joxe ko. waaw. bu ko defut dañ koy jël. dañ ndër télé bi waaw télé bi mom day fay parce que borom télé bi dana dem jëlib télé. hmm waaw lolu moy li wër li may informer deuxième bi nga xam amna ci moy ah. bi mu yoree télé bi manam pendant 7 ans ko xam da ngay na wax ne da ngay ni da ngay a bokk télé bi. day am 60 yow yaay am 60 mom muy am 40 nga yor télé bi pendant 7 ans muso ko rendre compte muso ko jox hmm waaw koku loolu tamit banen dossier la. Nous avons estimé 500 millions. 500 millions. De quoi tu top. Même si vous 90 millions, wow. 500 millions de si vous avez aussi que maintenant def dilatoire fi 3 mois ba 4 mois mais mm -hmm. après télé bi timit borom da koy jëla parce que hmm. dafa wala bok mu dem lijeenti lolu joxe manam hmm. ci nonu la démé ni moy affaire bi mais nekut ay ki budé ñi wax ay affaire dana appel ak appelout li ñuko daané ni may mëna mo appel appel waaw moom dañ ko daan mu dim jël affaire bi def def def def def def. def appel ñu daanaat ñu daanaat ko. mënut donc moom fay rek baa joxe li fi jàmbur loolu moo ca am. fay mbala joxe. waaw lii ma leen wax nag manipulé yi bari na waaye lii ma leen wax moom kenn du dara du ko dindi. Ah. waaw. manipile yi bari na bari na nag waaw. kuy manipuler. non xam nga gars yi boo leen bu dara amee duñ tontu directement mais dañuy dem tontu indirectement. Euh. waaw <laughs> waaw mais lii ma wax nii. Euh. bis bu demee ba lépp ci penc mi lay mujj te bu génnee du wuteeg li ma wax. d'accord incha allah. Cheikh Bara ñu daal di ñëw nag ci ki nga xamante ni mooy oustaz.